الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدو كوسي تي في جسان فيدو Whoops.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 جس میں لائش اسلام سوائے کی جنو بور رحمان کے آئی کے علمی لاتنیت کی دنیا رحمان کے آئی کے وہ جنوی دان چالا کرا اختربت ساعت و ونسا خلق مرو اوکا بسر قریش نوک یونس صلی اللہ علیہ وسلم نکو بھو بھدین یکم میں دار اوکا نکو وحیبر بھائی nañ leen indil seen maam Poussey nañ leen yàppale seen suuf nañ leen defal lii nañ leen defal lii. léegi nag ñu ne yonent boobu ngeen ñu gëm la weer waaj nii rek xotti ko ci digg bi. de daal ci jabalu abi Qubays wala daal ci jabalu abi Qaitaan boo ko defee bañ jàkkaarloo moom rek danañ gëm ne yonent ga tëdd nañ la gëm tëdd nañ la nangul yonent ne waaye bu mu ko defee ngeen nangu. ñu ne waaw yonent oo Seydatuna Fatima ak Asan ak Useynu bi ñaan ñoom ñu wax amin ci àll saare weer bi xotteeku ñaari xotteeku bii daal ci njaboot bi xubes bi ku xooy kaande boo ko defee xaram yi xores la ne liñ defal rek la du dëgg boo ko defee ci suba waaye nañ xaar ah, ba xam nit ñi ñëw jóge ci àddina tukki ndax bu ñëwee wax gis nañ ko mbir su fekkee nit ñi gis nañ ko ñu xam ne dëgg la su fekkee nit ñi gisuñ ko nag ñu xam ne yonent ñun la jabar rek ci suñ bëjee teel la sa ku teel la sa nga tukki si màkk li nga nattale ne gis naa loolu démb mu xotteeku ñaari xotteeku rek

yàlla ne dinaa ko wàcce de waaye bu ma ko wàccee bu ngeen gëmut dama leen di alal bu wàccee kéemtaan yi eh, ñu bañ rek ñoom ñëpp ñu alal leen xoolal si nag mi ngi nii def na ñaan na kéemtaan yàlla wut na ko kéemtaan bi te eh, gëmut te yàlla alal bu ko def lu tax loolu mu ne loolu mi ngi taxaw ci li yàlla dig yonent bi ne ko wa maa kaana Allaahu li yu'azzibahum wa anta fihim teeg yaa ngi ci seen biir man yàlla du ma leen alal gannaaw gi itam mu tegal ko ci loo xam ne fekk sa xeet ñu ngi ci man yàlla du ma leen alal de maa kaana Allaahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa maa kaana Allaahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruun xeet yonent bi ñu ngi def ci lu bon loo xam ne xeet yi jiitu woon sax defuñ ko waaye nag yàlla am leen bàyyi seetaan leen ndax ñu ne moo dëggal yonent ne ko sa xeet du ko alal sa xeet du ko alal li ma alal yëpp kenn ñuy jiitu ñu leen waaye nag dinaan dinaa leen di nattoo ay fitne yoo xam ne fitne yu métti métti métti moom danaa leen ko nattoo de nattoo woon na leen fitnaay Jenkis Xaan ak Olako nattoo na leen fitnaay Hitler nattoo na leen fitna ay yu bëri ñoo xam ne jaar nañ ci àddina bàyyi fitna yu jeex du xaaj ci fitna jamono yi ñu toll la salafiya ak wahabiya yëpp boo ay nattu yàlla nattu yu ñi ñuy reyante yu dégg bëccëg te reyantewul ci kaw loo xam ne lu ko yàlla rek waaye nattu yàlla nee na dina leen alak waaye nag dina leen nattu rek boo ko defee ba xoolee si weddee nag ne gëmuñ ci la di wàccee wax na iqtarabati saatu iqtarabati jege na saatu axabu bés pénc bés pénc jege na de wan saqata porteeku alxamaru weer waa ñaari porteeku porteeku bii wàcc ci yebalu am yëpp bays bii wàcc ci yebalu am yëpp waxi daan yëpp yëpp nit ñi jàkkaarloo moom de ba mu ko defee ci mustaskiin yi ak wéddikat yi ñu ne weer woowu côté ay nit rek ñoo ko gis waaye ñëpp gisuñ ko dëgg-dëgg ku fekk nga tëdd sa biir nekk nekk sa biir nekk doo ko gis loolu moom kenn mënu ko ngir weddi am ak côté jant bi ndax côté jant bi am na fii ci àddina wala ëllëg ci àllaaxira la ko yàlla di xaaree déedéet fii la am ci àddina ndax ñi dëkk yonent bi xoree chek ak tukki-tukki yëpp gis nañ ko te itam ñoom ñoo ko wax ne dafa ñu kéemtaan boobu gannaaw dañ koo wax ne doon ko jalgati defal kéemtaan bi boobu géeñu gëm la doon kay buy def kéemtaan boobu ci àddina la koy defee waaye ñu bàyyi ba dem àllaaxira ñu ko fa door a def bu boobaa kéemtaan amatul njëriñ ndax nit ñi jàkkaarloo la ñëpp li ñu leen doon wax amatul njëriñ de bon weeru su sottee ko ci àddina bii la sottee ko te ñi dëkk ak yonent ñoom Abu Jahlin ñoom Abu Sufyaan ñoom Abu Lahab ñoom ñëpp gis nañ weer bi xotteeku na te wax nañ ko gannaaw loolu ci xam-xam yu bees yi te lu ci gën a bëri sax ay naxe ay rek la photo yooyu ñu photo naan ñu ngi wone weer week ñu ngi wone ay yu bëri ci ay nekkuwaay yoo xam ne ci kaw kaw kaw asamaan si ci gën a bëri ñu koy wone fooy kii rek la technologie bi rek la waaye loolu ñuy wane loolu ne dëgg-dëgg mooy loolu mu waaye terewul nag nee na am na ci borom xam-xam bu ñuy wax Abdullah Alkaati waa Misra la <clears throat> professeur la jàngalekat la mu ngi ci mu eh, ci école u Angleterre yi sax jàngale wax na ne am na benn xarit yi tubaabam bu ko wax ne moom dafa tuub ci diine lu ko tax a mu ne dafa gis weer bi bi bi ci gars yi demee mu gis ci benn melokaan boo xam ne dara mën mënta firi dara lu dul rek lay wax ne yonent xotteeku na weer wi ba pare weer wi delluwaat tàppalewaat lu xotteeku buy tàppalewaatee da foog mu bàyyi benn mandarga mandarga buy wane ne lii xotteeku woon na dafa dajawaat mu ne ñoom ci seen technologie yu bees yi àgg nañ fu ñu gisee ne weer wi dafa tàppalewaatoo karena dafa takkaloo waatoo dafa takkaloo bon nag la budda le alquran wax ne insaqal xamaru loolu dëgg rek la mun a doon ba mun a doon ko tax a dugg ci lislaam waa fàtteeku ah, weer wi yonent wax na ne mandarga la ci mandarga yi bis pénc mandarga bis pénc yi nga nay semaine rek la ci àllaaxira àddina ngi tolloog benn dundu mu ngi tolloog benn semaine ci àllaaxira ndax lan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimmaa ta'udduun kon àddina benn semaine u àllaaxira la ndax bés bu romb rek junney bés la ci bési yi bon nag àddina bon juróom-ñaari junney ak lay dund ci at lay dund juróom-ñaari junney ak yooyu nag yàlla feeñal na ci ay man da koy waxoon ne dafay tegtal ne àddina bi dina tukki waaye àddina bi kañ lay ay juróom-ñaari junne at la koy ñàkk a doon àddina bi ci doomu aadama wàccee door a jël euh, euh, euh, melow taxaw ak tabax ak yëngatu ñu nekk bi nga ne ay day na soor ak ay rabe àll rek a fi nekkoon loolu dañ koy nettali rek ci biir dundu àddina la waaye dundu àddina bi tax ñuy wax nag mooy bi doomu aadama te vraiment dana feeñee léegi ñaata at la am nañu koy am nañu koy date naan ñaar fukki millions yi at ñaar fukki junne at na ñuy wax naan ñeent junne ay at am na ñu koy yëkkati di wax naan ba doomu aadama feeñee léegi ñetti téeméeri junne ay at ak dara waaye lu ci mën di am daal doomu aadama mooy li yàlla mujj bind ci ci kaw suuf si bind na yëpp ba yëpp pare. mu door a bind doomu mu ñëw ndax loolu mu doon bind di ko pare yëpp ngir tegalee ko doomu aadama nga ndax bu ñëwee fekk lépp loo xam ne war na koo soxla rek ndax sa gan boo koy oo mu ñëw balaa ñëw la fokk dem préparer ay teranga ndax bu ñëwee rek fekk ko fa naka noonu itam yàlla dafa indi doomu aadama fii ci àddina moom mu nekk gan ak yàlla kon nag lépp loo xam ne soxla na ko rek dana fekk yàlla defal ko fi rek bon doomu aadama moom la yàlla mujj bind wa ndax bi ngeen koy jàng sax ci xese yi aadama ba mu ko bindee ba ca tàkkusaan bisab àjjuma ba tàkkusaan jot mu bind awa takkal ko ko jabar mu door a nekk jabar juróom benn fan yëpp juróom benn fan yëpp di ngeen dégg na bind na ci lii bind na ci lii bind na ci lii bind na ci lii ba ca juróom fan ba mu ne ca mujj ca la bind ca ngoon sa bu ko jabaram may ko ko ko de kon dama damay ñaata ñaata junne ak la am si wala ñaata nuyoo nga am ci kaw suuf si borom yi wax ne nga war dama àddina fan yi benn semaine yi rek la bon juróom-ñaari junne at ci Adama boo demee ba bi gis nañ ne bon àddina bi juróom benn junne at yëpp dund na ko jeex na su ñëw ci juróom-ñaari bi junne at juróom-ñaari bi junne at bi lu bëree bëree bëri dem na ci jeex na sax yoon daal junnaat bi sax jeex na te waxoon nañ ne yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na gannaaw juróom gannaaw junne at bu mujj bi sama teer bi duñ sax ci àddina lu ëpp ñeenti téeméeri at wala juróomi téeméeri at su fekkee loolu wér na kon fi nekk ñeenti téeméeri at yi dund nañ ko ba jeex na ndax ne ñu ngi ci ak ñeenti téeméer ak dara kon dugg nañ ci juróomi téeméeri at bi te yonente nee na bu jël juróomi juróomi téeméeri ak rek ah moom duñ ca àgg ñeent duñ ko génn duñ ko génn te duñ ne dugg nañ juróomi téeméeri ah loolu ñu ngi ci xam-xamu yàlla wax nañ ne itam ah, yonente sallallahu alayhi wa sallam wax na ne gannaaw xeetam ñeenti téeméeri at gannaaw junni bi ñeenti téeméeri at dinañ dund la ñuy dund ñeenti téeméeri at bi ñaari téeméeri at yu njëkk yi ci la. Euh, mahdi yu di feeñ mahdi yu ci waxin boobu mooy fenkat yu bëree bëri dinañ feeñ di wax ci turu yàlla fenkat yu bëree bëree bëri dinañ feeñ ku nekk di wax naan euh, mooy wax ci turu yàlla yeeg mulla yeeg chia yeeg ak suñ sëriñ seeg ak suñ euh, euh, FM yeeg yëpp mbala la ku ci nekk yaa ngi wax ne rek yaa ngi oot yaa ngi ci diine te ñi ci ëpp yonent nee na ay fenkat la yore bon su fekkee joxe na tegtal ne ay mahdi yi danañ feeñ ci ñaari téeméeri at bu mujj bi bool ñu ngi leen di xàmmee mooy ñoom ñëpp ay fenkat la ñu doon te ñoom ñëpp dañuy wax ci tur yàlla dañuy wax ne yàlla dañuy waxal yàlla la ñuy ooteel waaye ooteeluñu yàlla ooteeluñu kudd seen bopp ak seen bànneexi bakkan rek mu ne su ñeenti téeméeri ak boobu su ñaari téeméeri ak yooyu jeexee nag su ko defee yonent yàlla Isaa mooy feeñ ci ñaari téeméer yu ci topp su ko bon nga dégg ci ne àddina ji yàlla ko sosee Adama nit ñi yàlla ko sosee Adama waaye mu ko tëjee yonente Yàlla Isaa maanaam ca bopp ba yonente ci nekk ci mujj yonente ci nekk rek moo tax euh, euh, yonente nee na sallallahu alayhi wa sallam na ma ak ma maag maag àddina ju tukki ñii mel nii wax yonent màndarga la woon ci màndargaay ne àddina dina tukki ndax moo ko wax ne boo estu wa saata hakaza dañ ma yónni mag bés penc nii lañ mel maanaam ni ni ni ni bi sutee rek noonu la ko sutee loolu moo jaar seen diggante bon yonent màndarga la ci màndargaay jeexu bés penc àddina ñetti téeméeri junne at la ak juróom-benn fukk boo demee téeméer ak juróom-benn fukk bi yëpp mu ngi jeex ci diggante yeneen mbindeef yi Adama door a ñëw Adama boo ñëw na àddina ne ko ah sama doom ñëw nga de waaye fekk nag fekk nga ma màggat waxamaane yi waxamaane gi jeex na bon Adama bi mu ñëwaat ci àddina àddina jeex màggat na ndax li ko def dund na genn wàllu dundam genn wàllu dund gi ci des mu ne ko doom ñëw nga waaye fekk nga. addina man màggat moom nga xamante ne bon Adama mandarga la ci mandargaay tukki addina tukki addina nag mooy lan addina bi dafay jógee fii tukki dem feneen wala de addina tukkiwut demut fenn waaye lu mën di am yàlla moo wax ne yawma tubaddalul ardu gayral ardi was samawaatu bés ba nga xamee ne man yàlla danaa soppi suuf sii def ko seneen suuf soppi asamaan si itam mu nekk seneen asamaan bu ko defee li ngay gis yëpp miinoo ko woon te tukki nit mooy tekki dem foo xam ne dañ fa gis loo xam ne miinoo ko woon rek xamoo ko woon fi nekk nii boo demee Dakar dañ fa fekk loo xam ne du gisoo ko kaw la gën boo gën a sori gën a gis loo xam ne gisoo ko Sénégal yëpp nga gën a sori gis loo xam ne senegal ak fii yëpp gisoo ko fi naka noonu nag gannaaw da ngay tukkee da ngay jógee ci place boo xam ne lañ fa xamoon yëpp du moom asamaan si nga xamoon du asamaan si suuf si nga xamoon du suuf si seneen suuf la boo koy def mel ni da ngaa tukki dem nga foo xam ne xamoo fa dara loolu moo tax nga am àddina dina tukki àddina dina tukki waaye fu jëm tukkiwu jëmul fenn yàlla mooy def te jëli yaatam rek nu ko neexee te jëli nii nii la mel te jëli ba leen noonu noonu kon mandargam mandargam fukki xotteeku xotteeku weeru xotteeku weeru wi tam ci mandarga la ci mandargaay fukki yi am na benn borom xam-xam li tax ñu toll mu ne yàlla booy buy melal bu njëkk àllaaxira di melal kaayinaat yi fi nekk. waaye la ñu doomu turisat waaye la samaawu furijat waaye la jibaalu waaye la sër sukurirat yëpp da ngay dégg. mu mu mu mu jox mu ay mandarga yoo xam ne yu métti lay doon waaye loolu doo ci gis si weer bi yàlla ci weer bi doo gis mu ne idal samaru tunisa waaye idal na nga wax waxu ci weer bi dara bàyyi na rek waaye yeneen ñi ci kaw asamaan yëpp boo demee idal nujuumu tunisa idal shamsu kuwirat ah, idal samaa'u infatarat yëpp dana ko jox ay mandarga yoo xam ne joxu ko weer wi de. lu tax lu tax loolu ñu ne euh, moom abo euh, moom mu tolli saaraaw yi mu ne dafa gis ne loolu li ko waral mooy ñii mu ne yonent Yàlla Muusa ah boo xamee ne wol nañ yonent mu ne bu ñu wolee bufte bi moom mooy njëkk génn waaye li mu njëkk a génn dana fekk yonent Yàlla Muusa moom ma nga aju ca kaw aras boobu yonent yàlla Moussa moo ko yëkk a génn mu ne ndax yàlla wax na ne euh, yow ma sooy kat bésu bésu sàq bi bés bu ñu reyte mooy problème bu mujj bi fa sooy kat man fi samawaati wa man fi ardi fa sooy kat man fi samawaati wa man fi ardi loolu mooy la wal bu mujj bi di jëriñ lu ko defee lépp loo xam yàlla bind ko rek dal lépp tam daanu def saako ba mu jeex tàkk mu ne ba ba mu yeewoo moom du tukkee sa xabroom gis ne yonent yàlla Moussa ma nga aju ca aras mu ne nag lu may yonent yàlla Moussa mu nekk ci kaw aras googa li ko ko may mooy fa fa la mante jëlla rabboo li jabali jaalahu dëkkan fi dunya bon am saako boobu ëllëg ci àllaaxira loolu moo tax loolu dalu ko moo tax itam weer wi gannaaw yàlla xotti na ko fii ci àddina bon ëllëg dootu ko boole ci mooy xotti na mos na ko ba pare waxi borom xam-xam kuy jéem a dégg rek la jéem a dégg nit ñi tëdd mu ne iqtarabati jege saatu pénc yàlla bés pénc taxaw ak bés pénc wala sa xata xobe kool xamul weer wa def ñaari ñaari ñaari xaaj de fii dal ci jébaloo bi xubaysin fii dal ci jébaloo bi waaye kaam waaye ni yaraw ndem gis nañu ñemee baru màkka aayatan moo gisa bu yonent si di gaaral yoonu bu ñu dëdd wa yaqulu ñu wax na haada bi de sexru njabar la mustamirun mu di aji dëgër lii daal du dara njabar la rek njabar boo xam ne njabar bu dëgër la bu tasaaroo de ñëpp ko eh, eh, eh, ñëpp la dal rek kon yonent yoronto ko ñoom xeesa yi de dinañ ko nekk dëgg rek jabar rek la boo xam ne jab yoronto ko jabare nit ñi ma ndax jabar nag mën naa dañ xaddina bi yëpp xalaaye jabarkat nekk na fii mën naa jël lii soppi ko lii bu ko jëlee soppi ko ci suñ bëgg yi ñun rek la koy soppi waaye moom xam na ne lii rek moo fi nekk ma lii rek li moo fi nekk mën naa laa soppi kii yii xaalis mën na ko soppi xaalis ci suñ bëgg yi ñun waaye moom mi koy def xam ne këyit rek lay gis dara soppeeku de kon njabaru xóotu li nga xam ne nag ñëpp ko gis yonent mi ko def gis na ko moo tax yonent yàlla Moussa ba ko yàlla di jàngal sa étam wax daf na ko alqihaa yaa Moussa fa alqaa fa tasaa Moussa dal di tiit bëgg a mu ne ko laa taxaf ndax Moussa moomu sànnee bi mu soppeeku jaan moom jaan dëgg dëgg la gis waaye nag ndax noonu la ko yàlla bindee moo tax mu bëggoon a daw ci su fekkoon ne dafay ñëw rek pour yabat nit ñi bu sànnee jaan gi nit ñi ñooy tiit ndax yow ko gis ne li soppeeku la waaye moom Moussa etam etam rek lay gis ne waaye nag moom gis ne ci boppam et woowu mu teel woon di ko sànni soppeeku na jaan moo tax mu tiit bëgg a daw yàlla na ko bu daw yàlla na ko bu daw dama jàppaat edwa rek bu leen jàppaat ko mu soppeeku jaan moo tax li ñu doon eh, def ci leer wi mënta wu waa may bànneexi bakkan seen ñu weddi rek topp li topp seen bànneexi bakkan comme démb ñuy wax doomu aadama bakkan topp bakkanam rek ak topp seytaane waaye yooyu ñu wax ne sax ñoom la ñuy jaamu ak kërëb yéen yooyu yëpp xam nañ ne jaamuwuñ yooyu waaye seen bakkan ak seytaane rek moo tax yàlla wax nan ah, ah, alam ahad ilaykum yaa bani aadama an laa taabudu seytaane bu leen jaamu seytaane seytaane ak bakkan moo ngeen di jaamu waaye kërëm yii ngeen di sant samp nan da ngeen leen di jaamu da leen di nax rek jaamu leen leen seen bakkan bànneexi bakkan ak seetaan yi ngeen di jaamu de wakka sëb bu ñu weddi wa taboo ñu topp waaw mooy bànneexi bakkan seen ci nar seen bàtt yooyu de wa kullu amuy nekk mbir ci laala moom hiw la ak ci laala moom xay la mustaqirun aji soxla mu de lépp loo xam ne mbiram hiw la dana sax ak seen borom ëllëg ñii dema dema sax ca yàlla ñu ci yàlla boole ñii dem safara sax ca yàlla ñu ci yàlla musal de wala xat yaa awum dikkal na leen ñu ne leen bàyyi ci solo yi réew yi nga xam ne man yàlla xalak naa leen réew yi nga xam ne xalak nañ yépp xeet yi nga xam ne yàlla xalak na leen yépp te kenn mënu ko weddi ndax lu am la maa fii lu nekk na ca moom muus da jëruñ jàjjuwaay de yàlla nettali na leen ci xeet yonent yi nga xam ne weesu woon nañ te ñoom yépp ñu ala nettali leen ci loo xam ne bu ñu amee xel mën nañ cee xalaatee ba waatule waaye amuñ xel waatuwuñ mu waatuwuñ kenn mënu leen waat de te li li li weesu mën na leen waat te nee nañ al al xakiimu man waisa bi xay bi ji képp sa nit daal di dal moroba mën na koo mën na koo jubanti mën na koo wàccee ba mottaliku rek waaye yàlla nettali na leen xeetu yonent yi passé woon yëpp ak seen alako waaye terewul taxu leen taxut ñu jaaj rek dañoo wér ci seen jubadi rek xikmatun xam-xam xikmatun bi la alquran xam-xam la baaligatun xam-xam la baaligatun bu dee aji mat de alquran ji xam-xam la waaye xam-xam la boo xam ne xam-xam bu mat la ndax lépp loo xam ne moom lañ soxlaa xam-xam ci rek boo demee da nga fekk alxuraan nekk na ci ndimbal dëgg la alxuraan du téere science du téere buy jàngale politique du téere buy jàngale sax littérature du téere buy jàngale lu muy jàngale lu ko tax a mooy jubal nit <coughs> teg ci yoonu njub defaral ko ay jikkoom defaral ko dëkkam fii ci àddina ci jàmm ak ëllëg ci àllaaxira ci jàmm loolu moo tax a alxuraan kitaabu hidaayatin téere jubal la waaye du téere science du téere politique du téere littérature waaye ka réew yooyu yëpp a ngi ci biir nag science a ngi ci biir littérature a ngi ci biir taarix moom waxaale wuñ ko ndax taarix yonent yëpp boo demee nettal na ko ci seen biir moo tax xam-xam la xam-xam bu mat sëkk la bu mboolem eh, utukaayu xam-xam yépp ak ñi war a wutee xam-xam yépp boo demee alxuraan joxoon na ko ndax unzuru ila samaay aw lam yasiru fil ardi fa yanzuru kayfa bada al xalqa ah seet leen seet leen seetantal jéem a xam asamaan ak li ci nekk loolu kay jeex na sant nit ne ko demal foofu gëstuwaayu xam-xam la ah affaire bi si rotulaa ba fayanzuru kay ka ba daal jóg leen ci suuf seetlu jàng leen gëstu leen xam leen ñu yàlla sosee mbindeef yi loolu yëpp boo demee yàlla koy jàngale ba pare nag teg ci boole na ci afalaa yaqiluuna afalaa yatadabbaruuna bi e, alquran bi ulil albaab bi borom xel ñu sell yi lu tax seetantu leen lu tax gisu leen loolu yëpp. mooy yi nga xam ne loolu nit bi jëfandikoo ngir àgg ca xam-xam kal kalaat seetlu euh, bàyyi sa itte itte ci li ngay def pour àgg ci xam-xam yooyu yëpp boo demee mooy joxe xam-xam yooyu yëpp boo demee alxuraan mu nga koy sant sant boo xam ne sant bu dëgër sant bu dogu la boo demee alxuraan ci xam-xam ci ñu koy utee li ñu wër nii rek ci lañuy ñuy utee xam-xam li ñu wër nii rek ci la ñuy xam-xam

waaye nag amul benn xam-xam boo xam ne daf koo fasale ñi nga xamee ne mutaxassisuuna yi spécialiste yi loolu la def boo demee nga xam ne dañoo spécialisé wu ci lii ci lii jataay boobu ñu lay defal ci xam-xam pour nga dégg ko alxuraan moom loolu taxu koo jóg alxuraan defaral la sa xol defaral la sa diine defaral la sa àllaaxira looloo ko tax a jóg waaye terewul nag xam-xam bu ma sëkk la ndax loolu laal xam-xam rek. fekk na gëstuwaayu xam-xam yëpp boo demee alxuraan wax na la wax na wax na wax na la ci dara de asamaan si géej géej ndox yeeg biir géej géej li ci nekk ak mbindeef yeeg yëpp boo demee alxuraan du ñu nar du ko. de dama dem ba xam ne sax du ñu nañu am na yeneen mbindeef yu nekk ci biir kaw nu bii ndax danañ leen gis ndax duñ leen gis loolu wax la loolu ci leen borom xam-xam yi toll. di leen gëstu ndax mën nañ leen gis ak mënuñ leen a gis waaye alxuraan junj na ci yu bëree bëri yu war a ne am na yeneen mi def yoo xam ne ñu ngi ci àddina bi ñu ngi ci ñu ngi ci kawlu bi fu mu nekk ci kawlu bi yàlla moo xam ci ban bi diw la nekk yàlla moo xam waaye nag yàlla nee na wa min ayaatihi xalqu samaawaati wal ardi wa ma bassa fiihima wa ma bassa fiihima min daabbatin wa huwa ala jam'ihim idaa yashaa'u qadiir yàlla moo bind asamaan ak suuf moo bind mbindeef yi nekk ci asamaan ak suuf bu ko def asamaan nag mooy lan mooy lépp loo xam ne tiim nañu rek asamaan la lépp loo xewe rek asamaan la asamaan bu ko waxee ci alquran du fi suñu imagination em rek ne loolu mooy asamaan du loolu ñun bu ñu xoolee lii rek yeex na asamaan yeex na waaye fekk lii xaj na ci asamaan rek ndax saba samaawaat yi moom la yàlla wax ne am na saba samaawaat yooyu am nañu ñu ngi ci biir kaw na bi saba samaawaat yooyu nag bu ci nekk rek ayat min ayatillaahi su ko defee nag fu yàlla denc ay mindeef yoo xam ne nee na waxtu bu ko neexee pour ngeen dajeeg mindeef yooyu di ngeen daje waxtu bu ko neexee mu def feneen waxtu bu ko neexee ngeen daje dana leen bàyyi ngeen daje bu ko defee nag loolu itam bu daje ba di am itam ci ittee doomu aadama la ko yàlla di jaarale ci ittee doomu aadama la ko yàlla di jaarale moo tax nekk nii nit ñaa def ay ittee scientifique yaa ngi def ay ittee di seet ndax am na te àddina am na ci kaw bi beneen àddina boo xam ne yeneen civilisation fa ay nangam ak ñu ngi gëm ñu ngi wër di wax rek léeg-léeg ñu euh, réel wax wax wax ba ba ne gis nañ ci kaw gis nañ yëpp àggaguñ ci dëgg-dëgg gi bés bu ñu rek dëgg googu mooy waxal boppam ne naa ngi nii nag li tees yi yëpp ay imagination la ak i xalaat ndax mën naa am ci loolu lañ toll waaye àggaguñ ci rek. doon alquran téere bu mat xam-xam téere xam-xam bu mat la waaye sama tool naa na na jëriñ ko anul suru waaja mu ne waaye terewul xam-xam mat mat sëkk taxul mu jëriñ yéefari dara de yéefari jëriñoo wuñ alquran ci jikko yu kawe ak jubal nit te ko ci kaw yoon bu jub mu ne yéefari jëriñoo alquran ci loolu de waaye terewul nag ñu ko koy jëriñoo ci yeneen i ngir yoo xam ne soxla nañ ko def téere bii ñu ngi koy jàngee fii ci Medina di ko jàngee ci daara yëpp noonu ko tubaab yi di jàngee église bi noonu la koy jàngee maison blanche noonu lañ koy jàngee ñoom noonu lañ koy jàngee ndax nañ bu baax a baax ne téere yeneen melu bi moom ci kawe bon dañ ko dañ ko daan jàng bu baax a di ci génne ay xam-xam am na xam-xam yi yu bëri yoo xam ne tubaab yi àgg nañ ci ba ko waaye boo demee cosaanu xam-xam boobu ñu ngi ko jëlee si téere bii rek ak nit yi téere bii ay borom xam-xam yu mag yu kawe yoo xam ne tubaab daal leen jàng fonk yaram fonk fonk ba teg leen sax ci place ay yonent ak Avensins ak yu mel ni ñoom ñoom ñëpp boo demee dañ leen a kaweel fonk leen lool. te boo demee ay jubbit lañ yoo xam ne seen sukkandikuwaay ci gëstu xam-xam sukka gëstu nañ lu nekk waaye boo demee alquran moo leen yemeloo gëstu boobu ndax moo leen wax ne gëstu leen xam leen sàkk leen xam-xam kon xam-xam na buut na buut xam-xam soriwut na buut yàlla ko may nit lépp na amaam waaye nag soriwut nit ndax yàlla ko ko may yàlla moo wax ne man yàlla maa la jàngal bon nag gannaaw yàlla moo la jàngal xam-xam boobu xam-xam boobu mënta sori mënta jafe de ala fokk mu ngi aju ci sa itte rek sa itte ñi nga bugg rek noonu ngay àgg ci xam-xam boo buggee xam-xam xam-xam ngoo boo buggee leneen itam man kaana yuriidu xarsa l-aaxirata nazid fi xarsihi mooy euh, te loolu mooy xam-xam loolu mooy xam-xam wa man kaana yuriidu xarsa dunya nutihi minhaa ku bëgg àddina itam ñu jox la àddina

yi muy jëriñoo doomaa la man noonu la koy doyee de waaye nag xam-xam bi nga xam ne dangay bàyyi ko ci yàlla moom xam-xamu diine dafay jëriñ doomaa dama rek te du ko lor du koy jëriñ di ko baaxal di ko yëkkati di ko def mbir rek moo koy moo ko moom moom la koy jëriñ de moo tax mu ne rek ma tun xel xuraan bi ne xam-xam la baale ba bu dee ajin mat fekk waa tuur ne waaye jëriñ na nu jur waa waaye dañu leen waat waat bu tax ngeen dëpp tax ngeen gën dëpp ne ko nag yonent boo leen waanee ñu bañ nag wan leen gannaaw bu leen faale de ba teewal leen dëddalaan mu walis leen wax nga leen dégluwuñ la bon bàyyi leen rek te bu leen faaleeti de te muñ rek bese ngi ñëw boo xam ne bu ñëwee danañ xam ne li nga leen doon wax dëgg la waaye fekk faat na de yow mu bés boobu mooy ban yow ma yeddoo bés ba dana woote daa yaay ji woote yaa te mooy Israfil bese ngi ñëw bés boo xam ne ne Israfil dañuy oote eh, yéen ñi def yéen yéen euh, yaram yu tas yi yéen nit ñi yéen ñi ñu tasaaroo yéen nit ñu tasaaroo yi yéen yax yu nag yi yéen karaw yu tasaaroo yi jóg leen seen borom ndax Israfil dana dana ëf ñetti yoon ci doftoom dana ëf nit ñi ñëpp dee bu yóbbu nit foo suuri fa saayata man fi samawaati wa man fi l ardi man sha allah illa man sha allah ñooñu moom la mu toll ni saaraaw yi doon bëgg a firi ne illaa man shaa allah boobu mooy Muusa ndax su'ita fi dunya falam yus'at fi nihaayati dunya moo tax illaa man shaa allah boobu mooy yonent Yàlla Muusa ci gis-gis yi mu euh, euh, toll ni saaraaw yi de am na yeneen borom xam-xam yu gisee neneen ne illaa man shaa allah boobu loolu lay firi Mune, yo maya dorbes bedan warga adai ayu wa kaya tamoy israfi ilasin gen kilaf nukulin bidulu sibde des boyen de hormek nyen di deki tuke sieni bamel di bu jisen barom des bobu bes bu sibula de des bobu hetwar nuko bagere o sham nit mo ajara nit mo moy ajara gal absaruhum ay bet sen de wate sen de yani ko ko lépp ubbeeku ñëpp ragal ñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi tiita tiita tiit ba li ñu gis tey kenn xamul lan la rek yàqu yu ne danañu génn ñoom nit ñi mi ne day daasee tukkee ci seen i xablo ñoom ñëpp nag ñu buur jógee ci xablu yoon xam ne kay leen sunal leen ba ñoom daanaka ñoom jaraat bu ñeneen lañ mu ngi te suñu daway ba saaboo de nit ñaa ngi génn tukkee ci seen bàmmeel yi dafa dalé ci adama ba ci nit ki mu jëdé ñep ñu genn bu genné dañu bari lool mu ne motax mu ne dañu bari ba melni ñeewé nga xamné ko saabu lañ dé fu nekk nak nit dana fa déké jëm alakhira ci ñent kontina yépp kontina ci yoonu kontina yépp ak kontina bu nekk lam lam dëkk lam lam té lam ngeng ci ay réew ak ay dëkk ak ay kër yépp kan fu nekk doomu adama dana fa déké utiile bés penc mu ne ñoom daanaka ñoom jaraatum ay njëriñ lañ moom te suñu daway tasaaroo mokkee na nit mu ñuy way yëkkati mu ñuy way gaaw yëkkati ay seen i ñoom ñëpp ña nga gaaw kay seen i bàmmeel yëkkati seen i dokk jëmale ko ca di xool lu xew mbir mi lan la ah ila daay ñu ngay daw nag jëm ci aji woote jare ñu ngay daw di wuti woote ah, israfil bés penc jot na yéen ngeen jox yu fan ak yii ee yéen kalam bi tasaaroo yi ee yéen yàqu wut tasaaroo bi jóg leen uyu seen borom bu ko defee ñëpp daal di mbuurandoo ci seen i bàmmeel daal di génn nag na nga jëm bés boobu nag yàquwul dana wax alkaafiruuna yéefar ya ne haasa li nga yow mun bés la asirun bu dee aji jafe yéefar yaa nga tàmbali nag di caalit bés bii bés bu jafe la ci ñun de wóor na kasaba dina xam ne moom ci njëkk seen yéen Quraysh xamu noox yonent yonent yàlla noox du yéen a njëkk a weddi yàlla weddi yàlla nit yonent nga xam ne mooy ñeen benn yonent weddi woon ñoom itamit noox lu bees yéefar yi yàgg nañoo weddi tey yi daan moom la yéefaru tey yi di layee itam ba weddi rek woñ ñu gis ñu rek lañ démb lañ daan wax mooy bi rek moom la ñu waxtee mooy bi ah kenn juruñu dañ fee ñëw rek ah, ah, ndax na doomi doomi jamono rek la suñ bàyyi ñooy deru ñet fa wa ak du la jamono ñuy génne rek kenn binduñu kenn amaluñu effet yi ñoo ko njëkk wax bala ko ñun ñii di wax di wax ne ay scientifique lañ bala ko wax fekk jaay yi nii ci jamono yi yi njëkkee waxoon nañ ko de ne ñoom kenn bindu leen dañoo am loolu rek suuf si joxe rek eh, jafe mooy joxe rek suuf si di wan bu ko defee ñuy juurante gannaaw loolu de waaye yàlla ñuy bindu nekku fi loolu li ko de mu ne nit yonent yàlla noo ngay yonent yoon na wéddi woon na yonent yàlla noo parce que bu ñu wee jaam dana jaam sunu ñu nit yonent yàlla noo ngay wéddi nañ suma jaam bi man yàlla te ma yonent yàlla na ko def waxtaan ñu wax ne maj noonu ak dox kuñ jinnee la ñu ne kii dafa dox rek wës du ñu la te gëdd yëf ko de te li koy gëdd métital ko toroxal ko kon nag xam ne yàlla noo amatul pexe lu dul rek ñaan yàlla yàlla dimbale ko ci ñii toroxal bi ñu torox bi ñu koy toroxal de yonent yàlla noo sax na ci nitam junneey ak yu yu manqué juróom fukki at fa labisa fihim alfa sanatin illaa xamsiina aaman yëpp di ko di ko oote rek jëmale nit ñi ci yàlla waaye alfa sanatin illaa xamsiina aaman du ko ci gëm fukki góor ak juróom-ñett ak euh, juróom-ñett yi boobu yëpp loolu ci génne ci ay nit ku gëm de yonent Yàlla Muhammad. di bële de. ba mu ko defee ba a nga jógee rek yàlla daal di koy nangul ñaanam parce que tax naa ñu ubbi ak ba samaay bunti asamaan bi maa ngi ci ndox mu na ndërin mu yaa ji doon tekku de ba mu ko defee yàlla sant asamaan yëpp ne ko ubbeeku rek sotti ndox ci kaw nit ñi ah boo faj jar naa ñu ballal la nga suuf yoroon ay sew la asamaan ak suuf yëpp ma jox leen ndigal sotti leen asamaan a ngi sotti lu mu mën suuf si itam sew na def naa ko ay sembe ñu ngi ball ay ndox yoo xam ne itam ñu ngi sotti liñ mën de fal taxaa te daje almaawu ñaari ndox ya ndoxam asamaan si ak ndoxam suuf si ala am nañ ci mbit moo xam ne kat ku dira dogoleef na ko def ba ko defee ñaari suuf yëpp daje daje ci mbit moo xam ne yàlla da yàlla ko dogu woon ne dina am de te mooy lan mooy xalaku nit yi yonent yàlla noo koy ci géej ga ñoom ñëpp yàlla xalak leen gannaaw waxee yàlla santoon ko xamal naa ko kañ xen ko moom wala ko moom yonent yàlla nuur ala zaati alwaaxin ci gaal bu dee borom yi dénk wadu surin ak i reñ de yonent yàlla dox na ba yàlla nam ne xala nitam ña daf koo wax ne na defar gaal gaal boo xam ne ci la koy jaarale moom ñi bëgg a musal ñëpp mu musal leen de yàlla dañ koy sant ne du na na def gaal gaal googa doomu aadama moo moo njëkk doomu aadama ah, noo ci moom la njëkk a defaree gaal waaye gaal googu ñu defar lu ko yàlla waxoon ne ko gaal googu def ko fekk man yàlla maa lay jàngal ni nga koy defalee de ni doomu aadama defaree gaal yépp yàlla moo ko ko jàngal ni noonu ñu ko defaree gannaaw ba nag gaal am nekk ci géej gi di dox ba léegi mooy gaal yi ci xam-xamu yàlla boobu mu jàngaloon yoonu ci yàlla noo ci la gaal yeeg yi dox ci géej geeg xataa yi dox ci géej ak sax te xam-xamu gaal googu rek la bàyyi de xam-xam boobu yàlla yàq xamaloon ñu doon teel a mu liggéey ci gaal mooy xam-xam bi liggéey ba léegi rek ci la ñuy te ji dana mu daw bi def na ko muy def naa loolu nag muy pay ñu doon teel a ndax moom lañu leen jëwoon de ba mu ñaan yàlla yàlla daal di koy dimbale may ko gaal boobu nag mu ne bayam yoon si yàlla noonu de ndax muñ na lool lool lool ba ko yàgg yàlla yow na nag xalaat na ni tam ya moo musal na ko de wala ka tere na ay de wax ci ko moom gaal ga desal nañu ko ah yeteel muy kaw fee ñeel ay yi xalam de yàlla desal na fi gaal boobu ngir mu nekk kaw fee wala nit ci yoon si yàlla mu gaa noo ko yooyu gannaaw bu ñu ko yëpp seen jëy li fi des ngir ni ñi ci xalame ba mëna waru de wala min mu dekké yi way waru len way waru len te way way waru len te waru de wala min mu dekké yi way waru len te waru ah xam len waru len te waru da kay fa gana na kay nekk azab bi mu sama wonu suri ak wa sama de mu ne nak yoonte sétal nak samay waat muy mujj ak samay mbolé yàlla du xalaat benn dëkk lu dul jox na ko waare na ko wattuloo na ko ko ah wa kunna maajidina hatta nabasa rasulan duñ alal benn waa dëkk lu dul gannaaw boo xam ne yónni nañ ci moom ab yónnant boo xam ne dana leen ragalloo dana leen waar waaye nag su fekkee bañ nañ fétti nañ li topp ci kaw loolu mooy yàlla alal leen rek waaye yàlla du tëb rek alal dëkk noonu rek ngir plaisir am du defee noonu de ala fokk nag yàlla du tooñ su fekkee yàlla tooñ na bon ci kan kan lañ koy booleel ñun ku ñu tooñ yàlla dañ booleel su yàlla moo la tooñ ci boppam ba koo koy booleel te yàlla du def noonu de ala fokk mu bàyyi doomu aadama yaakaaram du ko demee de yàlla du tooñ kenn kon ku rek daf laa war a te mbugalam moomu nag bu ñëwee fa mu war a rek lay tàbbi dugub dugub bi jàll seeni borom de wala xad yassarnaa ñun de jàppal nañ jàppandal nañu alquran ndax alquran li dikri ngir ngeen waadu de wala xad yassarnaa ñun de jàppal nañ jàppandal nañu alquran alquran li dikri ngir ngeen waxtu tawaadu fahamimu dakirin waaye waxtu leen tawaadu yàlla moo leen jàppandalal alquran ngir lan ngir ngeen mën cee waadoo mën cee jàngee mën cee xamee de yàlla bu fekkoon ne jàpp na alxuraan ji alxuraan ji ni mu jafee ni mu méttee képp ku jaar ci daara da xam ne li nga li nga jàng nii jafe na lool jafe na lool waaye su fekkoon ne nag amoo ku la ko jàppandalal su fekkoon ne yàlla jàppandalu la ba nga xam ne alxuraan ji mën nga ci dara loolu kenn du man ci alquran dara de waaye yàlla mu ne maa la jàppandalal alquran ba nga mën koo jàngale xale yu tuuti mën nga leen oo jàngaloo leen alquran ñu jàng ko xale bu ndaw xale bu ndaw bu nekk ci daara ji mag bu mag mën naa nekk di jàng alquran juum xale bu ndaw mais di ko ne juum nga ñii la loolu ku ne xam na ne bu alquran jàpp ñu doon du mën a demee noonu de yàlla moo jàpp ndalal doomu aadama alquran ba mu mën koo mën mën koo xam mën koo tasaare alquran li ci yàlla may ci jullit ñi ak liggéey biñ ci liggéey ci biir alquran amul benn téere ci àddina boo xamee ne nit ñi itte woo nañ ko bu em ni téere alquran bi bu mel ne alquran la ñu ñaa ngi ciy def seen xam-xam waxtu wu nekk yàlla di ñu yokk ci alxuraan loo xam ne xamuñ ko woon alxuraan téere la boo xam ne yàlla ko indi muy téere boo xam ne xam-xam bu mat sëkk la xam-xam bu mat sëkk moo tax xam-xam bu ubbeeku la rek ci jamono bu nekk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën a ay ci firi alxuraan te itam moo ko gën a xam waaye firiwu ko daf ko bàyyi noonu ndax bu ko firi dafay tëj nit ñi ci biir nit ñi dañu tëju ci biir alxuraan alxuraan du téere buy tëju téere bu la moo tax yonent daf ko bàyyi rek ak nit ñi ak tali yi ndax yonent ne na alxuraan rek da koy li muy gis ci jamonoom loolu da koy mën a ay gileem ak euh, fas ak ak montagne rek gis la waaye su fekkoon ne firi na ko nag ñu em foofa bon tey duñ mën a xam physique yeeg avion yeeg bato yeeg nit ñi xam-xam yi fiñ àgg ci xam-xam ak àgg ci xam-xamu médecine fiñ ci àgg xam-xamu colonnage xam-xamu biddiw yi àgg asamaan si ñooñu yëpp ci ci doomu aadama àgg léegi ci xam-xam su fekkoon ne ñoo doon te tëj ni ñu ci firima alxuraan bu boobaa alxuraan kenn du ko mën kenn du ko mën a dégg dana ci am xam ne duñ ko dégg de waaye nag bàyyee na alxuraan ak jullit ñi nga xam ne ñu ngi ñëw moo tax itam jullit ñi def nañ si alxuraan ay kéemtaan de xataa ñun waa daaray Sénégal yi sax boo demee def nañ ci alxuraan yoo xam ne yu kéemtaan la ndax lu mel ne xam-xama wàññi ci alxuraan xam-xam bu jafe la xam-xam bu jafe la ndax di nga wàññi baat bu nekk ñaata la jaar ci alxuraan baat bii fii lañ ko sëddaa lu tax ñu sëdda ko baat bi nii lañ ko jàngee fa ko jàngee ko loolu yëpp ba demee xam-xam yoo xam ne xam-xam yu sew la nit ñi liggéey nañ ko alxuraan nga teg ci itam benn waay ñëw na laaj benn xale bu ndaw ne ko naas ñaata yoon lañ ko jàmm ci alxuraan maanaam insaan ñaata yoon lañ ko jàmm ci alxuraan ndax euh, ni nga nga dégg rek nit ñi xam-xam mu ne ko mu ne ko xat yaxrujuuna eh, ak tudd eh, tudd ko ñeenti barab yëpp bu ci nekk daf ko tuddee laay ci alquran rek ah xad alima kullu munasin jamoo ah ak axriju ala luutin min qaryatikum innahum munasun yatataharuuna fa anzalna min as-samaa'i maa'an tahuuran eh, yang dapat jadi dari tempat yang manusia menakar nama luar nama saya kesiran agitam euh, bahas nak euh, nak zaman nak pasu euh, imam zaman nak dok dulu unasi di imami wajib dulu unasi yang mulai dek pun disengat itu yang juga kami ini amnen kecil Quran balik kami lunak rek kami bu baax a baax amul benn téere boo xam ne am na loolu de moo tax téere la boo xam ne mooy li ko yàlla mel ne léegi fekk ma tun daale ratun xam-xam bu mat sëkk la ko xam xale bu ndaw mën na gàggal ci mag bu mage ci alxuraan kadabat weddina xablahum kadabat weddina aadun aad ak yonent si seen de yonent yàlla wóot moom itam itam ñaar weddi woon nañ ko de ba kay na naka nekk azar bi ko wër yaa koy wax ay waat sama na xam ba kay fa kaana azar yi la waroon a wax ndax kenn rek lañ weddi waaye yonent yi benn rek lañ boo ci weddee Muhammad boo weddee yonent yàlla Muhammad te weddi nga yonent yàlla Muhammad ak yonent yëpp ba ci yonent yàlla Nuux de moo tax ma leen di jàmm wanu jour yi ak ay ak ay waat sama de inaa naka ñun arsalnaa kéer nañu alayhim ci ñoom ngay xam nga daw sa salum si ay riddi moom yonent yàlla yonent yàlla wóor nitam ña ñu leen xaragee ngelaw loo xam ne ngelaw lu riddi la lu bëri fi yow mi nafsin ci des bu dee aji gaaf des boo xam ne des bu gaaf la moo wàcc ci seen kaw mu seen leen mu leen aji sax di gaaf bés bu gaaf a gaaf a gaaf ci la yàlla wàccee ngelaw loolu nga xam ne moo xalak nit yu yoon ci yàlla bu jëre ga nahum daanaka ñoom ajaasu naxlin ay tansewu dana mu bocci naa sa nit ña ngelaw loo xam ne bi ko gisee mu ñëw dañ ne dem gas suñu bopp ba mu tolloog suñu digg ñu suul suñu bopp ñu dem gas seen bopp ba mu bëcc seen digg ñu suul seen bopp fekk nit ñu gudd nañ ndax ñoo rey ñu daan wax naan man échec dana naa ko watal noonu lay xamoon si kàttan de nga la fi suuf seen bopp rek nga la ñu yóbbu ñoom ñëpp dal leen deqi ñoom ñëpp dal si yow gën a mu deqi naa sa nit ñe kenn mu daan ko moom ajaar su nax leen ay dàtt tàngarma lañ ñun kaay bi ñu leen njóor rek lan ne ay dàtt tàngarma yoo xam ne yëpp ci nga yëpp nekk ba njóor leen ñoom itam noonu lañ ñu mel keroog rek gëzabëg fa kayfa kaana naka nekk azaabi mbugal sama wanu siri yàq waat sama de sama mbugal ak sama waat ak noonu wala ka des nañu te jàppandal nañu alquran alquran li zikri waaye waaye waaye ngir wattu tawaadu wala ka des nañu te jàppandal nañu alquran alquran li zikri ngir wattu tawaadu faral nañu mu dëkk leen waaye wattu leen tawaadu te dabat weddina samudu samudu bi ñu suri cabaajale yonent yàlla samu samudu itam Euh, ay nit la ñoo xam ne wet ni seen yonent te mooy Sadio Fett bañ ko waxee ne génne ñu gi leen boobu ngeen gëm la génneel gi leen gulaamal loo kii ndax mu ñëw yonent yàlla nu euh, Sadio moom dal di joxañ goj euh, ba rek di leen ba génn ànd ak doomam ñu moom ñu loolu leen yàlla defal fa xaaru ñu wax ne ba mu ko defee mu ne leen di leen gàngoo xame ko ba baax ñu wax ñoom xeefareer afasaran danañu topp nit min ah, naa ku tukkee ci ñoom waaxe dañ koy kenn ci ñun moo dañu topp nit koo xam ne kenn la rek ci ñun na tabewu danañu topp ko ndax loolu loolu war naa ñoo fekk ñoo lànk mooy problème nit de nit nit ñu teg nit yàlla bu yónni ci nit nit rek la yónni du yónni malaaka ndax nit rek malaaka ah seen jikko àndul bon mënta yónni ay malaaka ay nit lay indi su fekkee yàlla yónni na ci ñun ay malaaka ne leen laqad la ne ñu laqad kaana lakum fil malaa'ikati uswatun bon nu def ndax malaaka yi duñ lekk duñ naan du li ñuy def yëpp malaaka duñ ko def ba pare yàlla ne yi bu baax fu ñu jëm dana métti moo tax yàlla du nit lay yónni boo xam ne ñoo bokk li ñuy def ñun ñëpp waaye nag su ko defee setal na moo gën a set sax xataa malaaka yi moom lañ mën a nekkat de waaye bu ñu yónnoon malaaka ni ñu roy leen ko du ñu am nu ñuy def de mu ne moo tax yàlla nit rek lay yónni yónni malaaka de ñoom nag ñu ne lu tax ñi ñoom rek ñu di ko topp loolu ñoo fét li ñu ko def ñoo bañ de inna inna inna naka ñun isan boobu la ñu toppee nit kooku dafay dalaa leen way nekk la ñu ci fàndu ay xel de suñ demee bay topp suñ moromu nit naan yonent la bu boobaa ñàkk nañu ak war soo ren ak ndof ndof rek ak ñàkk xel moo ñu xiir ñu nangu kii naan war nañ ko topp ndax li fi biide la daw xeer ndax sànneef na azik lu waxyu alay ci moom min benn naa ci diggante sunu ndax moom kenn rek la yàlla di tànn ci ñun jox ko wax ne ko dama wax ak nit ñi lu tax ñu mer rek mer ak rek lu tax nangam lu tax nangam dox yaa bi def lii te defagul lii dox yaa bi def lii te defagul lii yéen ñëpp ngay werante xamoo ko ni yàlla ngay waxat waxoo bu ñuy de waaw kii ndax saa nekk na zikru wax yu baax leen ari si moom it ci diggante sunu moom la yàlla di di ko di ko wax yu di ñu bàyyi ñun bal bay bu moom kazaabun naraakoon la mu assuré du koy aji réeru de moom dafay fen rek dafay réeru rek li muy wax dara du ci dëgg sa yàlla mu naqal na yoo xam nga la caaga xiraat ma ne kaza ba naka nay la suñu ko daal yi réeru de boo déggee ci àlaxira da ngeen xam kan moo réeru ak kan mooy kan kat de ndax boobaa day leen moo ci wédi ngeen ko doon de dinaa naka ñun mosu lu naqat yi waaye yabal nañu wi na tan muy natt loolu yàlla de ñu leen di ngeen laaj yàlla te leen ko indil waaye bu leen ko indil dafay fitna rek ci yéen de fartaqibhum mu yëndu mu yëndu mu yëndu leen ko mu mu yëndu leen rek ñëpp yënd ko wastaleen mu yëru yow yonent yàlla ah mu yëndikul fartaxir mu yëndiku leen yow yonent yàlla Saalix li nga xam ne nit ñi xam nañ ko rek si gileen gi rek wastabir te nga muñ boo gisee lu mu mënti lan te nga muñ rek wala biir mu solo leen nag nee na naa naka ndox mi. xismatun lu ñu séddale la bay nam diggante seen de di leen gàmbu ñëw na lépp lu ñu ko mën a def yow yonent yàlla saadaku na nga muy rek te itam xamale ni ñu ne leen loo xam dëkk bi dañ koy séddale de seen diggante gileem bi tey gileem gi moo koy moom ëllëg yéenee moom waxtu boo xamee ne gileem gi moo ko moom du desal benn siit te benn teer yépp ko naan de su ko defee nag bu ba pare taxaw seeni buntu kër bu nekk rek buntu kër bu nekk dina fa taxaw garab meew su ko defee nag mu te bu ca ca ëllëg sa ñëw ñi jël ñu nekk ci loolu nekk ci loolu nag ñu ne ah waaye bii sàtt nañu waaye bii soof na nañ jot suñu ndox rek lu seet benn lépp ceeb moo ko loolu ñu teewal la moom lépp te kenn ku nekk nag sa cër bu ñëwee dafay mat sëkk cër yi jullit bi bu ñëwee dafay mat sëkk cër yi nit ñi itam bu ñëwee mat sëkk waaye li ne nag sonn nañ loolu sàpp na la xanaa dañuy wax saare boppam na aliyaa daara seen te mooy ku ibnu euh, ibnu ibnu sa sa sa sadis ku gën a texee ni ci àddina mooy kooku de ñu ne nit ku gën ñaar ñu gën a texee ni ci àddina mooy ñaar ñii ku daaw ibnu sadis ak euh, abdourahman ibnu muljëm ibnu sadis moo ibnu muljëm moo rey seydina ali ibnu abi talib de mu فنادى ابنه وصاحبه مجرى دار سيد المنقذة فتعطى تم يقتل حسين الجاسية فعقر تم rek jigéen ba rek ñu dal di koy woo rek benn daf la woon boo xam ne ku manqué ñëw ci benn dëkk dëkk bi jigéen bi nekk doon sa nobaan si ab jant moom ko defaa dëkk bi yëpp ñoom ñu ñëw ñoo rey jigéen bi mu ñu ne rey jigéen bi rek mu jóg moom waxambaane bi ndax jant bi jaay kattanam ak dooleem jox leen ma léegi man ma rey ko ñu def ko rek mu ne dañ koy rey de bu ne fa kay sama wanu jur yi ak ragal wax sama de seet leen nag kooku rey giléem gi ñu mujjee rek waa nitam ña ñëpp yàlla arab na leen de innaa naka nun asal naa xiir nañu alayhim ci ñoom say xatan xaaju waahidatan bi ne jenn fa kaanu yu nekk pexe ci min muxtalari ni ki mboobi tan gént de ba mu ko defee ba leen yàlla bu geexal ak ñoom tamit jibril la ñibbi la ñëw rek xaaj ci seen kaw benn xaaj ñu mel ni mbuubi itam euh, gétti de gétt googu nga xam ne la see nekk ci ay giréen euh, yeeg bëy yeeg xar yi ak seen i ndesit yooyu seen mbuub mbuubi yooyu nañuy mel ba jibril xaaj ko noonu lañ mel ñoom ñëpp wala kat des na ñu nga jàppante nañu la pour pour am léegi ngir waxtu tawaat yàlla wàcc na ci yeneen alquran bi ngeen waxtu ko. tawaadu de wala min mu dëkkirin waaye waxtu leen tawaadu te sabal bi dina xaw mu ci nit ci yonent yàlla lu bindu lu cawaate de yonent yàlla lu moom ay nitam génn nañ nangu weddi nañ weddi nañ innaa naka ñun yàlla asal naa tir nañu alayhim ci ñoom xaasiban jembaraay de ñoom ba leen yàlla di xalak jembaraay rek la xalak la sotti ci ñoom de comme ni ko yàlla waxee fa minhum arsalnaa alayhi xaasiban wa minhum kon a ànd ak yeesal de ndax ñoom la ànd ak noonu dañ cee musal nañu leen ñoom àll bi saxaarin ci njël ñeematan muy mu ngi xéewal mi ngi dinaa bu tukkee ci ñun yàlla yàlla leen xéewal ne musal na leen ñoom luut ak ak ak ñun luut te luut la rek ak ñaari doomam yu jigéen de moom ñooñu rek ñoo ko ñoo ko moom boppam ak ñaari doomam yu jigéen rek ñoo ko toppande kazalika kem bay boobu ñu fay yonent yàlla loolu ba musal ko ne sii dañuy fayal na shakara nga sant nañu suñu xéewal de képp boo xam ne yàlla xéewal na la sa xéewal yàlla dina la fay dolli la sa xéewal de ndax moo ko wax ci alquran mu ne wala ah, wala xadan ragal loon na leen yonent yàlla loo ragal ragal loon na leen nitam ña wattu loon na leen bal setanaa nguur suñu de yàlla yonent yàlla lu doon na ragal loolu te ña ragal leen yàlla ragal leen mbugalam yàlla fatamaaro ñu werante moom ñu werante moom naan ko li ngay wax lu dëgg topp fële ma ngi jàmm ñun liñ bëgg rek fatamaaro ñu werante moom bi ñu lu cabaatee ko ne ko nañu may jàmm wala xat wa aw wala xat wa aw du sàkk nañu ko am lay ci ca ganam ñëwe yàlla wax na yonent yonent yàlla loolu aaree nan ñu dem ne leen bàyyi leen suma gan yi ñoom ñu ne foog ñu dem ak ñoom ci ganam ñu de foog ñu dem seen waxamaane waxamaane yoo xeet yii ñu dem jibril la ak Israafil ak ñi ak ay malaaka ñoo ñëw ci melokaanu waxamaane yu rafet ñi nga xam ne nag eh, xale bu góor bu leen daan bañ a gis ñoom ñëpp seen xel yi dal di sànnee ñu ñëw rek ne dañuy lóotu si gan yi yonent yàlla na ko yooyu dañ lóot yooyu comme ko defee nag yonent yàlla lu leen ñaan yàlla ngir yàlla bu leen ma yi bàyyi bàyyi leen leen ko toppal fee xam nga ne ñun soxla sa doom yi jigéen ñi sa gan yi rek gan yi ne ko bàyyi leen ñoom du ñàkk si ci ñun de comme ko defee luñ leen njëkk a def rek jëm leen waaye seen kanam ñoom ñëpp seen kanam yi ñëw ak seen gannaaw yi amatuñ bët na peetuñ amatuñ bët amatuñ bakkan ñu yuuxu nag ndax yonent yàlla lu yabar nañu rek ba yàlla wàcc ci ñoom kaw bu métti ba dafa gojjee ci seen kaw ba pare ëlbati ci seen kaw rek moom la yàlla ñetteel la xalaaw sàkku sàkku ko am naa ñu far aayu nu may gis seen de yàlla mu ne ne bañ ko bëggee def yàlla dafa far seen i bët rek ak seen i xar kanam gisatuñu wax na wala xalaaw an day fii te du benn gan gan yu bëri la ñu ne fukki gan ak ñaar lañ ñu gan lañ ñu ne ñetti gan lañ waaye lu ci mën di am daf ko mufradal da am day fii ci ganam nga ko mufradal daf ko jago lu tax mooy ne ndax boo xasee am ay gan gan euh, arab yi dana wax am naa gan yu euh, ñetti gan mu ne jaa ani dayf te ñetti leen jaa ani dayf ñeenti leen loolu arab dana wax ci waxam waaye nag li tax yàlla wax na wala xalaaw duwaan day fii ci ganam mooy ne boo amee gan ñu ñëw ci nuñ mën ci am gënale kenn ci ñoom ci kaw kenn ci ñoom ñoom ñëpp ñi ngay ganalee ñi mel ni ganalee ñoom ñëpp benn ganale rek nga leen koy defal doo jox kii cër jox ko cër bari jox ko cër amul moo tax yàlla wéetal ko rek ne benn gan rek la ndax li nga war a defal benn gan bi moom nga war a defal gan yëpp te itam doo ci am kenn jag seen ñoom ñëpp say la ñoom ñëpp ngay teral de wala waxuma seen aada bi wala sama wóor yi ak ragal ak ak i waat sama wala xasa baabum xëy na leen bu ko la seen cëll la. allah moom bëggoon na sax lu mu yaay sax de wala waxuma seen aada bi wala sama wala lu yi ak i waat wala xaj a sax naa ñun de jàppale nañu al alxuraan alxuraan. ñu nekk dañuy bokk tawaat bi de wala ni mu dëkkee waaye wattu leen tawaadu wala xad naa la firaaw na firaaw na ak ñoñam am na juruwaar ya de firaaw na yode yoon na suuf yoon yàlla Moussa muy indi kéemtaan ñu bëri yooyu mu indi ñu kër bu weddi bi ayaatinaa ci kaw te suñu kullu xay yëpp seen ñu weddi yëpp yoon yàlla Moussa indi yëpp ci kaw te ko de yoon yéen ci kaw yooyu nga xam ne loxo baag xel waag ak yeneen yëpp ci la bokk ñu weddi ko ñu gëmuñ ko de wala xam naa ñu jàpp leen yàlla xarak leen nag ñoom nitu yonent yàlla ñoom nitu firaw na yi faaxar naa ñu mbugal leen axra si seen mbugalam aji aji aji kattan la muxtadéeni ku ja aji am ku ja aji dëgër boo xam ne dara waxtuloo ko rek yàlla nettali na loolu yëpp xorees ba pare nag di wax xorees di wax yonent ne ko ak kuffaarukum ndax xeetal seen yi de xayru ñoo gën min ulaaikum ci réere xeetal ndax xeefar yii nekk ak nii ndax yow kat xeefar yi ma arak xeefar xeefar rek la ma xalakee xeefar yële da ngeen xam ne yéen tamit naa leen xalak de am bàyyi lakum ñaan na leen ak deñ ci mbugal fii su muy jëkkee yu njëkkee a am ay téere yu leen di woon ne yéen a ko jàng ne yéen yàlla du leen mbugal am bàyyi yàqulu na dana yoo xam ne ndax ñun jam jam yi moom mbooloo lañ moom tas la mu daal yi dimbalante rek wala boo da ngeen di wax ne mbooloo mu déggoo lañ mbooloo mu taxaw lañ wattu suñu bopp ah xaw ma ko wattu Sénégal si la bokkam mu ne nax na ñun demee woon waroo la ñun tasiroon ñu ne aji dimbalante suñu ngir de sa sa moom buur ne sa yow sa naa dàq aljamu mbooloo de mbooloo moomu dañ leen de wuyu ba lu la ñuy méngale dugg la gannaaw ya ba ko yàlla waxee ne sa yow sama a ibn Khattab ne loolu muy amee suñ ta suñ doom a tasaaroo yi amuñ dara mënuñ dara naka la ñuy mën a dàqee jamoo waaye mu nekk ca xare ba def yonent ba xare ba def ñëwee ba muy sampale mu ñëw diw fii lay daanu diw fii lañ rey diw fii lañ koy rey diw fii boo xam ne nit ñi ñëwaguñ ak seeguñ xare baa ngi ñëw ak seeguñ waaye ku nekk bala ngaa agsi wax nga ne diw fii lay dee fii lañ koy rey diw fii lañ rey diw fii lañ rey ah loolu kooku doon wax kan la yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla wax ne wa maa ramayta iz ramayta walaakinna Allaaha ramaa mu ne nag say say yu mu Omar ibn Xattaab nag mu ne loolu mos koo dégg mos te dégg laaye ji lu dul keroog yóbbu Badar ba yonent sampalee al-Aqsa juróom ñetti téeméer nit ak ñaar fukk ñetti téeméer nit ak fukk ak ñeent yoo xam ne amul ngànnaay amuñ bindu bu doy amuñ yére yu doy amuñ waruwaay yu doy dàq junney nit yoo xam ne seen jëpp la doy ñu dàq leen mu ne loolu ku ne xam ne ne kàtta bi yàlla la ni doy yàlla rek la waaye fexe nit ak doy nit ak bu fa def ba bay saafu pencam yàlla mooy du mooy dëgal seen de ëllëg ceeraa tere nag yàlla am leen di muñee mu yàlla am leen di mu teeroo mu bëgg moo xam ne bëgg mu métti la wa saadu des pencé ku nga xam ne dana ñëw daa moo gën a njuumalu rek espèce bi nga xam ne mooy ñëw moo gën a njuumal si ñoom de wa amaru te moo gën a tët wex de wex de wexten de te moo gën a wex wexten ndax lan innal mujrimina naka xeefa ya fi dalalin wa nekk nañu ci xalkare wa sowrin ak safara de ñooñu ëllëg xeefa yi di tax bés boobu di métti ci ñoom ñoom ñëpp te ñuy xalako te ñoom ñëpp yàlla daf leen dugal safara de yow ma yus xabuna bés ba def na diri leen finnaari ci safara alaa wujuuhin ci xarkanam seen bés bu àllaaxira ñëwee nag malaaka yi yóbbu yéefar yi di leen dibi ci seen xarkanam ak seen bopp yi naan leen zuuqu mos leen mos sa safara laal ak safara de yéen doon weddi safara mu ngoog safara mos leen nag ndax loolu ngeen doon weddi ndax ngeen ko doon weddee noonu la wala déet safara mos leen de innaa naka nun naka nun yàlla kullu shay'in lépp la xalaqnaahu nañu ko nga xadarin si kenn lépp lu yàlla bind daf ko bind si kenn ci calcul moo tax ñuy wax naan yàlla euh, kii la euh, yàlla bi yaatu yi la euh, moo tax ñu wax ne yàlla bi yaatu la de lépp lu dafay ko def ci calcul amul dara lu ëpp lu lu nekk rek tëral ko ci ni mu war ak ci nam war a am doomu aadama ji yaramam ni mu war a la am ëpp ko wàññeeku ko deret yi nekk ci biir di ko nekkal yooyu yëpp bu ci nekk em na em boo xam ne bu ci ëpp rek mu feeñ ci yaramu doomu aadama mu feebar wala bu ëppee ba ëpp indi yaram wu tàng wala mu wàññeeku indi yaram wu sedd ndax na ko yàlla emale woon bu ko génnee rek nga gis am lu xew moo tax lu nekk yàlla bind na ko ci kem wa ma amruna déet ñu dem xamal sunu illaa nag illaa waahidatan la benn yoon rek la ñun yàlla buñ nawee amal dara benn yoon rek benn baat rek dañuy wax de kalam ñun nit ki ngeen yokk bi basari ci bët de kun kun fay kun rek laa mi ngi ni gëm ëpp rek man sama mbir noonu la gaawee wala xadar lak naa ñu de alak nañu ay saakum ay an ay kem seen de yéen yéefaru màkka yii yàlla xalak ni ñu ne la ni ngeen si kéefar de waxal ne lu dëkk ren waaye wattu leen tawaadu wa kullu shay'in lépp la faalu def nañu ko fi suugal nekk la mu ci ay téere de yéen kéefa yi na ngeen xam ne li ngeen di def yëpp yàlla ko bind si ab téere boo xam ne du dañ de mooy lawtal mahfuus wa kullu sagiirin lépp a ji tuuti wa kabiirin ak aji màgg mustatarun luñ bind la bum ca lawtal mahfuus de lépp lu ngeen def lu mu tuuti tuuti ak lu mu rëy rëy yàlla ko bind ca lawtal mahfuus de waaye nag innal muttaqiina naka way ragal na yàlla fi jannaatin way nekk lañu ci ay tool ci aljanna wa naharin ak i ak i yombe ñi a xam ne ragal nañu aljan ragal nañ yàlla nag daan topp ñooñu ñooma lëg ci àllaaxira ñu ngi nekk ci ay tool yi aljanna yoo xam ne ak sew ne di ñoom bànneexoo eh, eh, mbaak ak yàlla ngir naa ngi yàlla rek ci maqaadi si kin ci jotaay boo xam ne jotaay bu dëgg la te mooy xadaratullahi tabaraka wa taala muy teeb yàlla bare inda malikin ci ab buur muqtadirin bu jaay ñàttande ci kanam buur boo xam ne buur bu la te mooy mu ne loolu moom la ñuy fayee jullit ñi de suratu rahman saaru rahman makkeetun kul makka aw illaa yasaluhu man fi samawaati wal ardi alaaya loolu moom a dënee la de waaye boobu sittun juróom benn la aw samaanun iki juróom ñett ba saboona ak juróom ñaar waaye tam ci kaw dem de allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Amin. Amin.